30 intervenants. Uh, sama collègue député maa ngi leen nuyu baax jigéen ñi ñi fi nekk ak góor ñi di nuyu monsieur le ministre garde des Sceaux président assemblée nationale dinaa am fu ma tàmbalee parce que leen lu nekk dafa am temps ak heure bu ko rawaxee lii mooy procédé li nga xamante ne mooy affaire li jëm ci mbirum procédure pénale am na fi ay xew-xew yoo xam bu ma ko waxul du ma man Omar biram Birame Souleye Diop Abdoul Mbaw fekk na la si bureau di défendre pour ñu bàyyi suñu collègue dipt yi ñu jàppoon fii def leen maanaam li nga xam mooy garde à bi sama fere ci la bokkoon fii bi ñu jàppee Birame Souleye Diop jokk na maa yow président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar président Lamine Thiam démb si guddi bi ma woowee président de la république nee na ma ki nga xam mooy Ismaïla Madior wax na ko li ñu ko waxoon fii nga xamante mooy si commission bi kon ñu ngi koy sant di gërëm li am solo mooy ñun lu ñuy def duñ ko def pour njëstal askan wi ñu tax ñuy wax dama gis sama benn collègue député fii léegi wax ni képp ku ñëw si assemblée bii nekk si opposition bi Ousmane Sonko la findi ki ko wax da ngay fen waxoo dëgg maa ko wax ku ko wax waxoo dëgg ñun dañoo am list bu tudd wàllu nekk intercoalition PDS jël ñu Ablaye Wade dugal ñu si listam ginnaaw bu ñu génnee seen liste yéen ñu dem gañu and ak yeen ñibisi ñew ñëw bu duntu ñu dugg ñew fi ci assemblée nationale ñun bi ñu nekk di 2017 bobu xale yo ñi ngi nàmp biberon ak di naan ay médicament kon japp naa ni amna lo xamanteni il faut ñu arrêter ko fi askan wi nañ leen respecter tay wax ci loi yi ak règlement yi mais dafa am lo xam dafa melni en lay doon ak soxar parce que nak ñun sët suñ lan ku ñu bañ ya xam man fi bi may défendre Ousmane Sonko ay euh, ki nga fi mam jaara femme ay sutu Sabara Cheikh Bamba Dièye ki nga xamante ne maanaam mooy euh, ay dëmboj boobu fan la ñuy nekkoon fan la nekkoon ñu bëgg ñoo rey teel teel teel teel Ablaye Wade li mu fi def kenn def Karim Wade dafa war ñibbisi parce que tey monsieur le ministre am na loo xam c'est une diabolisation la duñ ko accepté parce que diabolisation nit nag pour yàq deram ngir bëgg am ay poids ak ay loo xam ne si dëkk bi la duñ ko accepté Karim Wade doomu président Ablaye Wade la li fi bàyyam def kenn defu ko fi kan moo toj fii ku dul Ablaye Wade fan la keneen toj yëpp ak ñoo rey wax ju bari secteur pas nañu bàyyi loolu nañu bàyyi nit ñu ànd ñu leen di yàq seen diggante nañu bàyyi soxorante gi tey waxante dëgg Karim Wade du sàcc jegewul sàcc jaaru fa du complot kat du mu complot kat Khalifa Sall du complot kat ñiy complot xam nañu ko te buñ ma taxee wax na dinaa wax de li ma xam bari na de li ma xam bari na ma tax a wax luma lu aduna bi tass xamna naa baax li may wax te am naa ay preuve maa Barthélémy jass wax nan ak kenen ak kenen ak kenen kon nañu moytu monsieur le ministre loi bi dafa am solo parce que loi bi dafa ñëw modification la bo xamanteni 1965 la won ñëw abroser li nga xamanteni moy mooy ci li nga xamanteni manam mo nek loi bo xamanteni ñing ko créé won 1981 article 2 abroser loi numéro 81 tire 54 10 juillet 1981 boobu waa socialiste yi ma ko sama ñoom maman ñoo ko indi woon tey ñu bàyyi woon ko fa tëj si kariwaan génn ko dikk bi do jabaram faatu mënu koo gis mais ko ku ko yërmatul waroo koo xas wala nga wax dara loo xamante ne du dëgg yàlla dogal tey ñu dox a dox ba adduna bi yëpp jox ñu dëgg yéen ngeen xamante ne wax nañ fii kër yi 2017 bala ñu di ko kaas tey ngeen ñëw restaurant wax wax lañ ñu ko waat ni kat kër yi baaxul nañu kër yi li nga xamante ne mooy maanaam parc finance te loolu mu bokk suñu programme nga xam ne mooy démocratie yamale jox si si bu